Euh, de dimanche euh, ba tey actualité phare bu dominé fii nii actualité politique bu réew Sénégal moo nekk euh, le remaniement du président Macky Sall nga xam ne nit yi ñu loon ko xaar si diirub cinq jours dimanche bi passé nag le président Macky Sall def benn état par yi nga xam ne bëri na ay coow nga am waaw déjà xam nga dafa dafa man damay wax ni euh, déjà dafa am dafa am yu bari yu ci dajaloo boo seetee euh, par rapport li xew nga xam ne mi ngi xew si Sénégal actualité xam ñoom souvent dañuy bëgg politique yi di def loo xam ni day tax ñuy gaaw a fàtte actualité bu surtout su def am yoo xamante ni sa les arrange mm-hmm. yu mel ni comme li xew mooy caricature bi nga xam ne def nañ ko prophète xam naa nañ ci ñëw après mm-hmm. euh, seetaan bi ñu ci def ñoom mm-hmm. ak li Aliou le Doumbérou la le ministre tukulóor la erreur bi mu def député du moins le député Alpulaar erreur bi mu def aussi ak ni ko nit ñi ak ni nit ñi attaqué woon ak jommi bu Macky Sall jommi xam nga jommi bu mu jommi euh, ci xam ne moom peut-être am na loo xam ne tu ko doxal euh, ak maanaam sonn bu système bi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo ko bokkoon ñoom ñëpp ñoo bokk maanaam seen i yu ñaan xët dañuy yëgoo euh, loolu loolu yëpp la dajal yëpp ñoo dajal loolu jàngat bi ma si am yaatu na yaatu na trop mais li ma si mën wax moom muy loo xam ne daal mën naa si wax sama gis-gis man en tant que activiste en tant que doomu Sénégal comme ñëpp moo di ne euh, ñi muy bett xëy na si wàllu surtout sax ci kaw Idrissa Seck surtout laay wax quoi ñi muy bett euh, ñoo may jaaxal mais pas pas pas man li may jaaxal man li may li may jaaxal dëggantaan mooy lu tax Idrissa Seck war a nekk débat quoi lu tax remaniement bi nii li xew ñu gis ni jël nañu opposition bi et dugal leen ci gouvernement bi def leen def nit ñi problème parce que ñi ñu ci boole ñëpp même système bi la. mais pourquoi nga ne cas Idrissa Seck bettu la parce que parce que xam nañu ñoom ñëpp euh, benn am wax naa ko fi l'autre te c'est un dinosaure politique xam nga euh, politique Machiavel laa lay wax euh, ñoom seen seen lëkkaloo ak seen seen liggéey ak seen i complot loolu loolu ñu mës a doxalee souvent da ngay wax dara nag euh, fans yi du ñu xam dañ lay saaga ak nga xam dañoo far fi Sénégal dañuy far Sénégal du ñu du ñu du ñu topp dara par principe bu positif dañuy topp dara principe yoo xam peut-être seen ay intérêt crypto personnel la wala ay affaires yoo xamante mais pas intérêt commun moo tax di far ci benn nit dañuy ànd ak njàpp parce que mooy jàppale seen dijaay bu muy liggéey wala mu nekk ministre pour ñu mën ci am dara mais koo xam ni yaa ngi xool intérêt Sénégal en général bu ñu la waxee dara ci nit da ko war a gëstu càmbar jaaxal mënuñu li mu def mënuñu jaaxal parce que na ko defoon na ko 2007 wor bokk na ci li tere Idrissa Seck nekk beew ak wor moo ko tere nekk président Sénégal. Mm-hmm. Euh, quoi qu'on puisse dire ci Macky Sall c'est vrai que baaxul dëgg la ni muy politiquer baaxul que ci benn wii bi la bokk que doxalul Sénégal nekkul ci lu koy doxal mais am na lu ko am na lu mu ko jaraloon quoi cest di dire takkoon na biiram daal wan ginnaaw Abdoulaye Wade. Mm-hmm. cest à am na benn moment boo xam ne Idrissa Seck takkoon na bi euh, Macky Sall takkoon na biiram c'est-à-dire Idrissa Seck problème mu takk biiram la am mënul muñ quoi en bon Macky Sall nag boo gisee mu am lii mu am mooy donte ni mu gouverner baaxul donte nax nañu mais ci nax bi noonu nax sénégalais sa anuma boo xam jaral na ko mu takk biiram. Mm-hmm. Euh, Abdou Karim bu ñu defee euh, focus rek mm-hmm. sur le cas Idrissa Seck mm-hmm. gannaaw bañ ko nommé si bopp conseil économique social et environnemental def na benn sortie euh, jàkkaarloo ak journaliste yi def benn communiqué de presse di xam ne moom fu mu toll ni dëkk bi fu mu toll ak crise économique bi Covid bi ak lépp loo xam ne rek immigration clandestine bi nga xam ne fu mu toll ni secoué na bu baax stabilité euh, réew mi moo tax mu rejoindre lii di gouvernement mu nekk ay propos yoo xam ne euh, yaakaar naa ni peut-être yéen mu war ngeen ko mën a nangul bu Sénégal euh, soxlawee ñëpp war a nekk autour du table de la table bi tey Sénégal yàgg na soxla quoi te gisuñu leen ñoom xam fii loolu si ñu ngi wax temps yëpp yaa presque après élection présidentielle yi ñu wax naan ana opposition bi ba ma man ñu ma si ñu bari di wax si journaliste yi ma leen opposition fi ñaar nit a fi opposé muy Barthélémy Dias ak Sonko. Mm-hmm. gars nag nooy def Idriss Seck nooy nooy def nooy def ma leen au fait cest kenn du fekk nit muy daw bu dugg ci suuf rongalam ngay xëcc tànkam ne ko kaay opposé ba muy jóg ne da def politique du ñu ñoo ko ci dugal donc li ñu bëgg expliquer ci loolu mooy cest à bu ñu nax Sénégalais yi quoi bu ñu nax naan ay ay euh, Covid bi moo tax crise bi am ci dëkk beeg euh, immigration yeeg yooyu bu ñu sonal crise bi am dëggantaan ba tax mu joindre pouvoir bi xam nañ ko mooy moom moom ay problème ak ay ay ay ay ay ay ay ay crédit bancaire am ak ay du mu sàccee alalu réew mi depuis euh, ay jamono jamono yi Abdoulaye Wade alal jooju nga xam ne alal bi lewul moo teel a dem yoonam alal ju lewul day tasaaroo moom moo dugg ci monde boo xamante ni peut-être dem ba mënatu ko gérer il a fallu mu dem mu joindre joindre pouvoir bi parce que xam nañu pouvoir bi fi nekk partage du gâteau la. xam nañ ko ñun xam nañ loolu xam nañu Macky day partager gâteau la cest à affaire bi gâteau bu ñuy partager la seen biir ñoom noonu la ñuy mhm. ñoom bi bokk ci. le journaliste Cheikh Yérim Seck yëkkati woon na ay kaddu par rapport di soulever deal mhm. boobu euh, maa ngi fàttali ko jamono boobu ñëpp dañ koo jàppoon jàppoo diaboliser ko jàpp mhm. ne dafa ndaxte accepté na institution bi nga xam ne moom da ko politiqué woon en 2019 jàpp ne c'était une institution budgétivore est-ce que tey finalement Cheikh Yérim Seck amul raison sur tout le monde. mais xam nga Yérim Seck d'abord damay sax taxaw ci Yérim Seck quoi am lu am solo wax ci Abdoulaye Wade ak Conakry. ma gis gars yi di ko attaqué quoi ci Facebook bi et tout ñi koy attaqué yëpp fekk si wuñ ko ci li mu wax. cest à mooy dañ naan ay violé débat bi nekkul ay viol yi Yérim Seck di viol quoi wala lu mu def débat bi mooy moom c'est un c'est un journaliste boo xam dafa pertinent mm-hmm. politiquement le Sénégal a besoin des journalistes yu mel ni Yérim Seck malheureusement bon na li ko dal li mu mel loolu yi koy dal neexuñu ñun ñëpp metti nañu mm-hmm. parce bu ñu sañoon

Euh, bu yàgg waxoon na ko ne euh, Idrissa ak Abdoulaye ak kii ak ak Macky Sall réeroowuñu mm-hmm. mais il a raison wax na sax ni séq nañ ay teraanga mm-hmm. te gis nañ ay journalistes yu mag génn nañ ne euh, que dafa demoon ba am problème ba léegi état du Sénégal da koy dugalal ba état du Sénégal doon ko dugalal 30 millions par mois donc yooyu pour wax la te loolu du moom kese ah benn bokk yaakaar bi ñi ci nekkoon yëpp la Macky Sall doon dugalal 30 millions par mois c' que partage partage du gâteau la loolu dafa yàgg léegi Sénégal yi xëy ñoo ko yëguloon wala ñi ko yëg xam ko peut ñemewuñ ko wax wala mais loolu moo am au c'est que loolu la bëgg a xamal ne leen ñi nga xam ne ñoo nekk ci système bi li tax ñuy xeex ñun di xool koo xam ne taxewul ci système bi laalu ci bokk ci di rey suñu bopp di fexe it benn candidat boo xam ne c'est un gars bu bu digne koo xam koo xam ne loxo yu set la yor loolu moo tax parce dañu xam ne ñoom ñëpp ci système bi lañ nekk ñoom ñi fi nekk ñooñu Abdoulaye Wade doo leen jur dañuy bennoo après ñaaroo après ñettoo après tasaaroo après booloowaat au dañuy fooyee peuple sénégalais bi dañ leen di nax di teg ay dir seen ginnaaw. Mhm. donc loolu moo tax ñun ñu jug tey en tant ne kat sénégalais yi xeex bi ñuy xeex ñun dëgg la ñu ngi wàcc ci mbedd bi ñu ngi dóor ñu ngi jaayante ak buum yi ñu ngi fexe di xeex ak yi ñu ngi fexe di pousse suñu ngëm-ngëm mais nañ leeral Sénégalais yi tamit fot fol yi mën nañ ko mais fal am na ci solo yan critère lañ war a tànnee nit ki ñuy fal. Mhm. on parle d'Idrissa Seck mais am na ko euh, mhm. ko xam mu nekk euh, koo xam ne euh, xar-xanam ràññewoon nañ ko bu baax par si parti démocratique sénégalais. Mhm. donc tey avec l'entrée sa Seck si biir mouvance présidentielle bi est-ce que mën nañoo jàpp ne fu mu toll nii Sénégal amatina oppose ay opposants c'est-à-dire ñi ngay lim du ñu ay opposants ils n'ont jamais été xam nga wax naa ko fi man nee naa la fii man opposition kenn laa fi gis muy opposé Ousmane Sonko la. mais euh, il est arrivé deuxième. derrière ay élection ah, yoo xamante ne dañu privé plus ne mhm. dëgg quoi. donc loolu dafa nekk lu doy waar quoi. Mhm. man mënuma c'est-à-dire Idrissa Seck même man pour man sax élection présidentielle yi passé sax man pour man dafa comploté woon pour barrer rek pouvoir bi quoi pour barrer ñi nga xam ñooy vrai oppo opposants yi mooy les les Ousmane Sonko et autres. Mhm. man loolu laa gëm donc musuma gëm ni ñi ay oppo opposants lañ musuñu ko nekk ay dealers lañ c'est des comploteurs ay bandits lañ yu ànd di comploter askan wi depuis des années et des années am te loolu chaque jour histoire jamono histoire dañuy jox raison dañ koy wax nit ñi wax mais après ñu demee ko. Mhm. dialogue chef de l' opposition dialogue national bi nga xam ne statu chef de l' opposition ñu lon ko activé bu bëri euh, par rapport ak ku ko roddoon ñii naan Idrissa Seck ñii naan Abdoulaye Wade ñii naan euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. est ce que tey euh, kon finalement ralliement bi nga xam ne ñoom ñaar yooyu def ne ko auprès du président de la République Macky Sall du donewul benn raison kenn ku mel ni Ousmane Sonko wala Barthélémy Diaz bu loon wax ne ñii ay dealer leen wala sax mu nekk benn occasion bu mag ak Ousmane Sonko euh, gën a téye li nga xam ne mooy euh, euh, oppose statut chef de l'opposition fii au niveau du Sénégal. waaw xam nga moo chef de l'opposition ñoom ñoo ko créé cest à ñooy Macky Sall toog ne di xool naka la manipuler askan wi pour mën di créer ay mots yoo xam ni les yi nga xam ne peut-être ñoom lañ ci masse bi ci ful bi lañ nekk et tout duñu comprendre seen dil yi teg ay chef de l'opposition loolu pour attarder ak pour jaxase opposition ñi ngi ci tool yi di yuux mais pour président xàmmee leen la créé amuñu principe teguñu dara pour le Sénégal juguñu pour Sénégal ñoom ñooy xalaat ay chef de l'opposition mais loolu du débat débat bi mooy lan la Sénégalais di dund. débat bi mooy ana calendrier républicain bi. fan la toll kañ la élection di am maire seen mandat jeex na cest loolu mooy débat bi quoi débat bi mooy fichier électoral bi nan la mel. tey jii nii Ousmane euh, trio Macky Idi ak.